taxawaay bii li ko sabab mooy que ni terrain bii lañu ni dañ ko dañu fi daggal case de santé ak école mais bi ñu fi ñëwee démb ci kii bi euh, bi fi waa domaine ñëwee li ñu dagg daal saay matul li benn bi matul école bi ci des case de santé matul sax ñeenti kër man maa ngi taxaw man bi ma waaj a wone kër yi fii jaaxle naa. après ma ñëw fii daal dellu si ma ànd maa ngi ànd ak euh, ñoom directeur ak ñun ñëpp ñu toog ñu wax ñu wax fii ñun ni nag léegi dañuy def euh, conférence de presse ñu waxtaan a gars yi parce que lii dara dara taxawu fi daal ah xanaa xanaa xanaa yab nit ñi c'est la seule solution yab nit ñi parce que cas de santé day dañuy am loo xam sax kii bi fa lay dëkk ah fa lay dëkk cas de santé bi maternité bi ci la mais maternité amul école bi non non case de santé bi poste de santé bi baaxul fii daal saa trois cent la trois cent case de santé te te man gis naa fii mais ah ndax mat na ko ndax mat na sax trois cent yi loolu moom wax wala ecole bi mille la ñu jox waaw ca guy gi ci la mille mètres carrés matul ñetti classe ah waaw léegi nag taxawaay bi man ak population bi ñoo nekkandoo population bi laa ànd lu ñu wax rek loolu laa d'accord parce que nekk aussi yenn yi vraiment yabel la yenn yi yabel la li ñuy def fii du yoon parce que fii ñoom ñoo ni woon pour le pour ko kii bi rek lañ fiy def waaw équipement collectif rek lañ fiy def léegi gis na nu ñuy ñëw di fi di di di di fi wut ay parcelles ah waaw mu ngi noonu ay parcelles lañ fi def borne ko waaw 150 mètres carrés mais loolu nag loolu nag ah man di joxuñu ma kenn baaraamu tuuma vraiment nag man joxuñu ma kenn non def leen ndànk man joxuñu ma kenn ba ga baaraamu tuuma man maay délégué de quartier bi mais joxaañu ma joxuñu ma kenn baaraamu tuuma parce que yëgu ma yëgaanu ma bi ma toog ak maire li ma wax loolu laa mën a gëm. waaw ok li ñu fi fi dajale tey je pense que nii le délégué de quartier. Euh, en guise d'introduction wax na ko parce que képp ku dëkk Ngent dem nga ba renseigné wu ba xam ni espace bi dañ ko bàyyee pour ñu def fi des des équipement collective collectifs maanaam liñ si gën a ràññee mooy case de santé école ak terrain de foot léegi ñoom toogoon nañ benn moment ñu gis ni am na ñu fi ñëw commencé di morceler espace bi pour def ko ay terrain population bi jóg dox li ñuy dox ak benn association bi ñu naan ànd defar ngent bind autorités yi saisir leen par rapport ak question bi biñ ko defee aussi ñoom am nañ si ay réponses par rapport à cette question je pense que ni receveur bi répondre na leen ne leen espace boobu c'est réservé uniquement à des euh, kii kii équipement collectif maanaam loolu boo ko waxee maanaam loo xam ni day dellu si askan bi askan bi ñoo ko moom kon donc waxuñu nii loo xam ni dañ koy def pour ay kër bi ñu toogee am na lettre bu ñu gis maire def ko au mois de juin parce que receveur mi ngi répondre au mois d' avril bind ne moom dafa bëgg ñu délimiter ko école bi espace benn surface pour école bi benn surface pour case de santé bi poste de santé bi donc ñun xam nañ mu jublu si loolu bi mu defee loolu effectivement ñoom tontu nañ ko ñëw commencé di def benn délimitation pour benn surface pour école bi ak benn surface pour poste de santé bi maanaam ñoom loolu li ñu si jublu mooy génnee ay espace ne surface bi ne 1000 mètres pour école bi met mètres carrés ou 300 mètres carrés pour poste de santé bi espace bi si des ñoom ñu morcelé ko def ko ay parcelles te réellement loolu lañ fekk si terrain bi boo leen demee ngeen jël image seen bopp terrain yaa ngi ne ñu morcelé. des kii de cent cinquante mètres carrés borne yaa ngi fa boo leen demee ngeen gis ko loolu la askan bi dul nangu. amul wax parce que loolu loolu kenn du nangu. il faut ñoom ñu xam ni waxuñoo waxuñoo ay ay ay profane. il parle avec des gens yoo xam ne ils sont bien instruits. maire ñoom boo xoolee collectif bi association bi li mu demandé woon ci lettre bi ñu bindoon que ñu ñëw délimiter ñu espace bi. wax ñu espace bi ñaata mètre carré la ñun loolu lañ soxla waxuñu ko mun ñëw naan ñu dañuy délimiter école bi kii bu ñu paree ci loolu ñu xam ñun école ñaata mètre carré lañ fiy def poste de santé ñaata mètre carré lañ fiy def ak terrain de foot ñaata mètre carré lañ fiy def mais ñëw na délimiter ma lii benn espace bi bërkaat dee mu ñu fekk fi gars yi ñuy borne commencé def des parcelles de cent cinquante mètres carrés ça passera pas te loolu noonu dañ koy dañ koy dañ koy wax fii képp ku fi ne muy notable di képp ku nekk si quartier bi ba jéem see ànd ak ñoom boo ñëwee da nga fiy fekk population bi da ñuy rey jaar suñ kaw pour mën ko def lii nag dañoo ni pour askan bi la ñoom nañ ko bàyyi askan bi suufu ceeb yëpp jaay nañ ko fii dégg nañ ko mu ñëw fi def déclaration bi coow li njëkkee am ñépp ko dégg maire bi qu'est-ce qu'il a li mu wax loolu dani moom yëgul xamul nu mu demee mais ça ça ça loolu mënta ne fii damay wax président de bu fi bëggoon suuf sax faaw maire am ci yoon parce que moom lañ far pour commune bi nan la nit ay nit ñëw di commencé di morceler di def ay bornes yow nga ne yëgoo ko bi ma déggee wax jooju c'est la saisir yenn gars yi man leen kii waxi wax yi muy wax du wax yi taxaw kon donc il est temps li askan bi moom ñu delloo ñu ko fii Thiès desatul suuf saax saaxee nañ suuf sëpp gis nga ce problème la tout le monde devait en parler mais da ngay gis ay benn ñaar ñi si des ñëpp dañoo daw làqu ñemewuñ see wax parce que ñun xam nañ nu mu demee si dëkk bi lañ dëkk gis nga affaire bi du jàll ça ne pa pas il faut que ça soit très clair l' affaire là ne passera pas nañ ñu ñëw li ñu bëgg waa cadastre defar ñu ko cadastre li askan bi bëgg mooy la ñu délimiter ñu fii ñu xam ni titre foncier boobu surface bi ñaata mètre carré la bu ko defee ñun dinañ wax ni école bi ñu bëgg tant de mètre carré li mais imaginez l' école Issa Dème le directeur il a dit avant-hier am na classe boo xam ne quatre-vingt-seize élèves lay def. waaw sem imaginez sem sem deux sem deux bi def quatre-vingt-seize élèves classe d'examen bi def di buy def loolu. école yi école yi école bi day màgg dëkk bi day màgg ah dëkk bi day màgg nit ñi dañuy màgg dañuy gën a bari ñun on a besoin ñu defal ñu ñu bàyyi ñu def loo xam ne bu ñu ko defee les gens seront à l'aise école bi dina am espace boo xam ne les enfants peuvent s'épanouir. poste de santé bi ñu def poste de santé bu mag bu mucc ay ëllëg si biir sax ñuy xalaat pour def ko district de district sanitaire ñun ci loolu lañ ne mënuñu ñoo jël ñu am espace bi ñu bëgg ñoo tënk après terrain si des ñu bëgg koo seddoo loolu dañ koy dinañ ko bañ tey bañ ko ëllëg te buñ luñ si bëgg nag bañ non dama lay wax tey lii ñu ñëw fii du question ay dama bëgg maire ak bëgguma maire gis nga bu ma bëggee maire bi maa ngi dem si terrain bi di ko wuti mais gis nga lii beneen affaire la ñun ñoo dëkk ngent affaire bi suñuy doom ñoo fi njëkk jàng suñuy doom ñoo fi njëkk faj faju suñuy mag suñuy papa suñuy yaay kon donc affaire bi affaire u ngent la kenn duñu ko xeexal ñoo koy xeexal suñu bopp d'autant plus que ñu dëkk ngent te au delà de loolu ngay wax man président conseil communal de la jeunesse la association boo xam jëmu ko jiit c'est apolitique non comment combat politique lu mënul am combat politique ay terrain boo xam dañoo ni c'est c'est pour des kii yow nga ñëw bëgg koo jaay ngeen dem gis fee ñu morcelé combat politique man bu ma koy def xam fu ma koy defee damay dem affronter leen yow mii di ma poser question boobu xam nga ni gars yi maa ngi leen di affronter ci terrain bi te amul daara lu ma ciy reculer. no dañu ñun li ñu gis lañu wax parce que bi ñu saisiré maire moo ñëw fii wax amuñu ñun keneen ku ñuy waxal moom lañ fal. c'est le maire non mais moom la ñuy waxal. Mamadou Lamine Diallo on parle avec qui mënuñoo a kenn ku dul le maire. parce que moom la ñu wax suñ problème moom moo bind kadaf au mois de juin ne ko ma benn surface pour école bi ak benn surface pour poste de santé bi te ñun biñ koy bind soxlu laaj ñu ko loolu xam nga luñ ko wax nañu délimiter surface bi yëpp ñu xam ne surface ñaata mètre carré la askan bi xam ne tant de mètre carré moo fi ne bu ko defee ñu xam ñun yan lan lañ fi def loo xam ni dana rendre euh, utile à la population c'est ça notre combat li ñëpp wax nañ ko mhm. surtout maa ki nga xamante ni moo wax nii ba bàyyi liñ fi wax yëpp moo fi nekk mais liñ lay waxal monsieur le maire mooy man du ma raay raayal dara lii ñu fiy kaas ñëpp monsieur le meer lañu wax ne moo ko fiy def mhm. mais ma xamal leen ne gis nga borne yi ñu fi teg du fi mus a am ndax parce que ñun suñu terrain bii lañ njëkk a xeex ak ñun ne dañ koy def dañ koy jox defal ko marché mais poste de santé bi fay nañ xaalis ba pare ana xaalis boobu ana xaalis boobu te xaalis bi mu xaalis baa ngi tege léegi lu ñuy bëgg a liggéeyee poste de santé bi duñ ko defee fii su école bi nga xamante ni ñu ngi ko bëgg indiwaat fii ah suñu doom yi ren kenn jàngul amul sax niveau bu baax léegi loolu yëpp ñuy bëgg a rey suñu bopp duñ ñu koy indi fii benn yoon mu jeex mais lan mooy ni problème bi pour dagg ko ay terrain monté nag gis nga ñu jox terrain yi fii ku ci nekk yaa ngi sa biir kër dag toog ñu ngi fii ñu ngi dëkk ñun fii ñu ngi seen biir kër yi toog duñu génn de mais bu ñuy réunion ñu ngi ànd ak ñun ci réunion bi de mais dañuy dóor suñu tànk yi ci suuf parce que ay xale lañu ay xale fii toog fi gis nga fii borne bu ñu fi ne dañ koy dindi borne yëpp la ñuy dindi borne yi mafia pire la mafia pire moo fi am parce que ñun loolu ñu lijjanti wuñ ko ko jiite waaye man dañ lay xamal ne la dañ lay xamal ne yow monsieur le maire Lamine Diallo dañ lay xamal ne la bu fekkee ne dafa am ñoo xamante ne dañ leen a yebal fii pour ñu ñëw fii waa ngent pare nañu muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw pare nañu ñu leen di xaar nag lu ñu bëgg ñoom ñu dem koog ñoom ba mu jeex tàkk jeex na